bi maa ngi lay nuyu. ziar na la Ndiak Zo la. mais li toog fii toog kuul rek waajal làmb kuul rek di xaar arbitre sifflé waajal làmb ji waaw. mais sa indil. lu bëri lépp. lépp lu làmb laaj rek. muy wàllu xeex beeg bëre beeg dóorante bi rek. indi xale naa ko toog di téye di ñaan yàlla may ndam nag waaw. waaw moom loo koy yóbbante moom adversaire bi de lu mu koy yóbbante mooy loolu lépp li mu signé rek na ko dëggal boppam bu ko dëggalee boppam làmb ji lu nek neexee yàlla di ñaan yàlla may ma ndam. jërëjëf. Mbar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax baax. mbaa yaa ngi si jàmm. maa Mbar. waaw loo indi sa adversaire. Ah, lu soxor la ko indi lu soxor préparé préparation bu soxor. ñëw war ko maanaam daa jël soxor revanche. dinaa ko gën a duma moom duma ko daan ko si kattanu yàlla. gis naa la ñëw di indi affaire violence di jëm indi xuloo man non violence sama lamb kenn ma ko yàqal ndam moom tax a jóg naa am ndam ñibbi wala soxla combat bi boo cigee sa xel ci ku mu jëm grand combat bi laa soxla grand combat bi ñoom ñaar ku daan baax na waaw ñoom ñaar ku daan baax na ñoom ñaar baax na jërëjëf waaw njag soo noonu waa huitième combat de la soirée ci diggante Malam Ñaani ak Ndiakso Ndiakso moo ngem boo ngemb lu xonq Malam Ñaani moo ngem boo ngemb lu ñuul li arbitre baa ngi wax ñoom li nangu ak li làmb waa huitième combat de la soirée waaw arbitre bi suble na Malam Ñaani ak Ndiak Sow bi kirum kiri bu Balla Gaye école de lutte bu Balla Gaye Malam Ñaani moo ngemal attention daw nañ xeex léegi Ndiak Sow ak Malam Ñaani Malam Ñaani daa daw yéeg ko léegi Malam Ñaani Ndiak Sow ñoom ñaar daw nañ jàppante Ndiak ak Malam Ñaani waaw Malam Niani ngi jokka suuf Jackson attention oxo kawo Malam Niani door na mu daanu kawo attention kawo oxo Malam Niani ak Jackson Malam Niani door na mu daanu Jackson ndeysaan ma ngay bañ lu dem moo takk téere bi ci boobu téere xoox mbay simpi mooy ndaamal màcc mbay sabala moo ñu wan ginnaaw mbay simpi ak mbay sabala ñoom ñaar ñu ngi leetoo mbay sabala ak mbay simpi ñoom ñaar mbay sabala moo jàkkaalu ñu mbay mbay mbay sabala doona benn arabu dal mbay simpi ak mbay sabala waa mbay sabala ak mbay simpi Mbay Sabala Mbay Sempi waaw Sabala a ngi dox ci kawam Sabala ak Mbay Sempi attention Sabala Mbay Sempi jël na Sabala Mbay Sempi Sabala Mbay Sempi Sabala Mbay Sempi jël na ko léegi daal génnaat attention Mbay Sempi door na ko arabu dal ñoom ñaar xeex nañ waaw ndeysaan ñoom ñaar xeex nañ léegi mbay sempi sabala sabala mbay sempi sabala mbay sempi attention ñoom ñaar mbay sempi sabala sabala a ngi dox ci kawam mbay sempi sabala daw nañ jàppante ñoom ñaar mbay sabala sempi Sabala ngi cokkaas Sabala mbay sempi waa mbay Sabala sempi sempi am na ngemb mbay Sabala amul ngemb Sabala ngi cokkaas waa Sabala ngi cokkaas Sabala mbay sempi Sabala ngi Sabala ngi cokkaas Sabala mbay sempi Sabala mbay sempi waaw Sabala mbay sempi ñoom ñaar Sabala mbay sempi attention Sabala Sabala mbay sempi Sabala mbay sempi oh oh laay laay mbay sempi daan na sa. Mbaye Sabala daan na simpi daan Sabala Mbaye simpi daan Sabala mais combat bi da nga yaa daan maa ko daan kay mais lan dafa daanu dafa daanu waay ah ko daane bilaahi dama ko daan def quatre appuis. dafa def quatre appuis dafa def quatre appuis mais arbitre nañ def nànk nañ def nànk bu ñu topp ambition combat wala fulu combat bay bay joxe li war a joxe. te xale yi xaaral xaaral xale taxawal xale yi amuñu chance su lamb dañuy dugg dañuy dugg recours recours bi day toog des mois des mois arbitre duñ ci wax ay mois des mois des mois kon nañ jàppale xale yi ba ñoo tiré xool li ñu bu baax te CNG moo ñu war a jàppale ñu teg fii baar xool parce que sport de combat la il faut avec chute yoo xam ne day gaaw mais dañuy dimbali ci xëy dañoo sonn ci entraînement yi dañuy dimbali ngir yàlla. moom la xam na li ko yoon may. waaw mais da ciy sonn dégg lu ma daal xoolal grand xam na li ko yoon li ko may mais tey bu dugalee recours am wallaahi CNG ñu ci wax dara man dugal naa recours boo xam ne ma mu def 4 mois 5 mois waxuñu si dara ba tey tey ñun il faut waa CNG di si jàpp lii dafa metti taxawal amul dara la yàqamte dañu nañu dimbali ngir yàlla di jàppale xale yi jërëjëf billahi wallahi taala dama mbay seet kaay eh. eh. mbay maa ngi lay baax a baax waaw dañoo gis combat bi yàgg na te diire na barki Mouhamed dama dama blessé sur suñu làmb ji dama moo waaye nangu ma ko wax kee dama wax sama benn booy ne ko dama blessé waaye nag ndax ah, bu ma yàq bu ma yàq làmb ji làmb ji sama làmb la maa xam moom waxoon naa gars yi wallaahi moo tax làmb ji ma reculé ndax mënu ma woon jël yenn bagaar yi moo tax bu ko fàqatee moo tax moo tax ma rëpp trois bi fàq romb moom nee bi mu la fàqatee da ngaa def quatre appuis sama dànk bàyyi ne sama dànk bàyyi ne ba tey wallaahi trois bi laa mu romb ma njëkk ko daw sangaat ko billaahi moom nee na da ngaa bi wa sama onzième combat huit victoire la am trois défaites. bilaay sa ah. xel ci sa xel mu nekk. grand combat bi laa nii. booy Dakar booy Dakar. booy Dakar bu booy Dakar rek grand combat bi ñëpp ku ñëw bu baax na. ku rek. dama xam dafa daan la mu mer ma dayaat ko. waaw maa ngi sant nag ñëpp ma jàppale ñëpp nag surtout Abdou Gueye aw ma Samat Samat yow bi barki moo xam ne yow laa ko may Samat su ma melee nii yàlla ak sa fay sant naa la gërëm naa la Abdou maa la sant bu a di sant waa koñ ñoom ñëpp waa koñ ba yëpp maa leen sant ñëpp maa leen sant aw ma aw ma seen mënu ma lim ku ma lim damay juum billaahi wallaahi ñëpp a ci jàpp